tey naam li ñu indi woon mooy fësal suñu diggante ñu ak président Ibou Guèye waaye li ci gënoon am ci solo ci ñun moo ñëwoon tamit sàmm kóllëre gi nga xam ne am nañ ko ak diggante ak suñu ay mbokk dàngu donc parce que ñoom dañoo wane ne dañoo bokk mu bëggoon bokk ci mbokk yi te ñoom wane nañ ko ñu nangu ne njaboot gi lañ bokk kon dinañ ko continuer ni mu waree mu nekk nag ànd bu nga xam ne ñu ngi koy yaakaar Euh, di dina jëriñ d'abord bu ànd dàngu sax balaa mu may jëriñ incha allahu rabbi ñu profité ci nag ci diggante bi pour waxtaanee li nga xam ne tamit moo nu war parce que nit bu lay gunge dafa mel ni mbër tey mbër balaa loo ko tàggat tàggat bu amul licence du bëre donc ñu waxtaanee ak sunu ay mbok ne leen ñun tey yaakaar nañ ci yéen ndax xam nañ ni fii ay gorof yu dëkk ku la pare ne benn yoon du parrainé waat keneen donc ñu dënk leen suñu bopp ndax bi suñu ay ndaw ñëwee ci ngoon wax nañ ñu ne gis nañ ni lu bëri. vraiment nit ñi nangu nañ pare ne suñu liste Sénégal en mouvement donc ma gën leen dënk suma bopp ma ne leen nag gunge leen ñu ba licence bu ñuy wut mooy parrainage bi ñu am ko ci anam yu gën donc may sant population Tëngéej yëpp di wax responsable yi nga xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom ci biir département Rufisque ne lii teraanga la woon bi nga xam ne séq naa ko président Ibou Guèye ak ay nitam ma ñëwoon spécialement pour loolu mais bu soobee yàlla dinañ ñëwaat ci biir tournée bi. pour ñëw waxtaanee ak waa euh, mbirum Tëngéej ak waa Tëngéej yëpp ndax ñëpp xam nañ jafe yi fi nekk ñëpp xam nañ ne Tëngéej tumuranke na dafa di capital yu njëkk dëkk njëkk yu màgg ci réew mooy bu ñuy wax quatre villes yi nga xam ne dañ ko doon tudd ci Sénégal Tëngéej ci la bokkoon mais yàlla def ci diggante bi li ci war ci gunge amul mu amoon benn potentiel bu mag bu nekk fii ci wàllu industrie tamit non seulement njëriñul waa Tëngéej mais mu ngi am ay gàllankoor yu muy ci askan wi ci seen wàllu wér-gu-yaram mu nekk li nga xam ne ko war waxtaanee ku wax ñooñu dañoo war a gunge population Dangu. ci population Tëngéej ci wàllu RSE pour gunge askan bi ci ay question yu am solo wàllu assainissement ñëpp xam nañ kanaal bi lu mu meloon ci jafe-jafe ci biir Tëngéej donc ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne war na donc mu nekk benn jàngoro bi nga xam ne mu ngi fi il faut ñu waxtaanee ko de la même manière ñu war a waxtaanee ndawu Tëngéej parce que ku xam Tëngéej xam ne tamit dëkku mool la mais ay ndaw ñu ngi war a jàngi bu dee da nga leen di bàyyee université Dakar wala université Diamniadio bi nga xam ne mënul indi li nga xam ne moom lañ soxla ci wàllu formation bi ñu soxla ñoom de nekk jafe-jafe yi nga xam ne suñu ay waajur dañ ciy gën a sonn te duñu tax ba suñu ay ndaw mun bàyyi jàng ñëwaat toog fii di ñu sonal donc vraiment mu nekk ay plaidoyer yi nga xam ne war nañ ko def parce que fii dëkku cosaan la dëkku aada la mais dëkku am potentiel touristique bu mag la donc bu ñu liggéeyee ni mu waree bu sobee yàlla dina mun jëmale Rufisque kanam